la ñuy tàmbalee tey incha le peuple yéenekaay la ñu koy tàmbalee waxtaane nag mbiru ko déclaration de politique générale le peuple nañu nag jegeñaaleeg Ousmane Sonko wax na te la mu wax du lu ndaw rëy na lool nee na Ousmane Sonko waajalul benn yoon wutali pencum ndaw réew ma ngir nag amal loolee di DPG nañu ko duppe ci kanamuk assemblée bile eh, kii di eh, wuyoo rek ci eh, turu Abdou sànnee la mu wax daal moom mooy ci assemblée bile daal Ousmane Sonko du fa taxaw di def ab déclaration de politique générale assemblée bile sax moom moo ko fas yéene dalal ginnaaw nag ab formation gouvernement bu wees bi juróomi fan ci avril bi ñu weesu kii dee limaanu jëwri nii daal taxaw na jamono ci taxawaayu ko jeexal bu baax a baax app bi nga xam ne may nañu ko ko bu ñu sukkandikoo ci suñuy naataango loolee nee na nag DPG ma ngay dem sori na sax dafa mel ni Abdou Sané bokk ca Pastef na daal DPG du am te taxawlu ñu assemblée nationale bu yees pekk alerte ba tukkee tamit ca professeur Maysa Jaxate moom taxaw ci tamit li nga xamante ni moom mooy règlement intérieur ba nañu ko tëralee ak la ca doxul communication jub PME ak cek doo xam ne moom moo jëm ci wàllu ka conseil des ministres am ci DPG bi le bokk na ci loo xam ne bés bi le jour ma nga koy waxtaanee Ousmane Sonko newaat fàng tam ci ko ko enquête yéeni kaay jamono ji ñu ngay waxtaane mbiru ko rationalisation budgétaire marché ya contrat yi ñuy xaatim bokk na ci li nga xam ne lépp la bëgg tasaare bu ñu sukkandikoo rek ci suñu yee naataango moom élimaanu jawriñ yi le yéeni bi xëy daal di xam ne nii jox na joxe nag ay dige waaye tamit ngir rek ñu daal di dégager lépp loo xamante ne marché budgétaire la ngir financer axe yu gën a am solo ci projet bi le marché ki contrat ñoom jamono ji nga xam ne ànduñu ak priorité bu bi daal lépp doon na loo loo xamante ni dañu ko war a dakkal bu ñu sukkandikoo ci gis-gis ba mu am Walib Diouf Bodian moom naka ma ngay tasaare port autonome bu Dakar bu ñu sukkandikoo ci réew mi yéenekaay jàpp leen daal ne audit ressources humaines ya tàmbali na Walib Diouf daal yëngal na port bu ñu sukkandikoo ci réew mi yéenekaay mi nga xam ne nee na yeesalaat contrat à de déterminée nag doon na loo xamante ne rek jamono ji dañu ko rek daal di teg ci suuf di xaarandi naka lay wëyee addu jëmale ci euh, koom-koomu réew ko Sénégal ci weeru juin bi leen info yi ni kay dañu xamal daal ne xaymaka ga jib na ca baruk banque mondiale ngir nag euh, jot critère de convergence bu yema nag tax ñoo ñu daal di def ab jéego seetal budget ba daal di ajusté waat tamit euh, produit intérieur brut ba loole yéeni kaay bi nag dëxañco tollu ci ñett yu juróom benn ci ay ponk ci pourcentage ba bokk na ci daal jamono ji lu ñeel atum 2024 jàpp 2025 ci wàllu ko koom ak yéen yu ni mel vox populi kaay xëy na tamit waxtaane askan wi nga xamante ni daal ñenn ca ñoom ñu leen di jaay ñenn ñi ñu leen di liggéeyloo rapport 2024 gouvernement US ci kaw Sénégal département d'état ba dut na baaraamu tuuma mbooleem daayira ya euh, sëriñ daara yi ak réseau yi rawat na rek li Euh, di nguur ak Sénégal li quotidien yi nekkaay nañu Bassirou Diomaye Faye dogu na lool takku ba dëgër ci wàllu ko pétrole bi le recette ya ci ah, mbirum 2025 jàpp 2027 fësal nañu ko loolee milliards yu takku la ëpp na sax juróomi téeméer bu ñu ko xayma bokk na ci daal seetlu ga mu fa def na ni démb ba mu koy ah, xooli l'indépendant yi ni kaay ci coow daal la mu wax moom mooy moom Bassirou Diomaye Faye la muy diggee bokk na ci daal la yorin wu set waaye tamit yorin boo xam ne jaar na yoon ginnaaw nag seetlu nga xam ne jot na ko caa def ndokkeel na nag mboolem personnel bi nga xam ne daal ñoom ñoo fa nekk waaye addu jëmale ci loxo bi ngi xam ne nguur ak Sénégal dina ko soob ci coowala lu ni mel la source ay yéeni kaay desaat ak ñun jamono ji ci mbiruk mëñee yi ñoom naka dañu fipp woon rek nii dañuy gerew dakkal production farine ba waaye dafa mel ni dellu nañu ca ginnaaw ginnaaw waxtaan mi nga xam ne daal jot na ca am yéeni kaay bi nag nañu def nañ benn jéego ca kanam delloo ñaar ca ginnaaw mu mel ni puusuñu paasuñu muñ sukkandikoo ci suñuy naataangoo Les Échos yéenekaay moom nee na nag jamono ji ci mbiruk rapport 2024 bi lay jëm ci traite des personnes ci ci réew Sénégal département ba moom nag kepp na rek ñi nga xamante ne ni ñenn lañ ci ay jàngalekat ay touristes ak i nigérian restallation démb membre conseil économique social et environnemental tam yéenekaay bi xëy na ci daal nañu Bassirou Diomaye Faye gën na rek taxawal ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekkoon ay conseillers Macky Sall wax ci beneen nag coowal ci ëttu yëglekaay boobe lii di attentat la bi door collectif ànd sàmm jikko yi ne nag moom teg na rek ab kayitu kalaame jëmale ko ci di phrase yi nekk nag rappeuse bi nga xamante ne daal la ci bésuk fête de la musique daanaka lëmbi na askanu ko Sénégal la ko colin ba nga xam ne jotoon na koo beneen na coow lu yëngal rek moom mooy libération yi ne la mu xëy dëxëñ tey ji ci xëtam mu njëkk ak coowal Sicap ñeenti milliards yu toftal ñaar yoo xam ne a santé ubbi woon nañ ci ab information judiciaire li ko dale woon weeru septembre atum 2021 ginnaaw a kayitu clamé bu tukkee eh, ci eh, yëf ya jàppale nag ni ña nga xam ne daal eh, jot dutoon na leen baaraamu tuuma boobaak léegi mu mel ni ñu ngay rek dox seeni soxla kenn fattu leen na le quotidien le quotidien nañu nag mbirum mburu mi dikkati na rek mëñee ya ñoom teg nañ lépp ci suufa ginnaaw euh, tànku jàmm bi nga xam ne bay di añ dox na ko ca ngir rek wàññi fitna gi ñoom industriel yi rek ñu ngi woote ñu daal di delluwaat ci wàllu concertation yi léewu mel ni mburu ma dafay tàmbaliwaat Elimane Ndiaye ca boruka Marseille moom jàppale nag ni loole euh, lu ñuy war a fàtte la jàppale daal ne stade mu ñuy xamal ne doomi pendanaar bi lee ma ngay wutale rek Everton bu Idrissa Gana Gueye ngir nag suqalikuwaat ci wàllu carrière ma jamono jooja Pape Gueye moom demam leer na nañ Ismaïla Sarr daal lañ nekk jamono jii di xayma moom ana fan la rek daal di toll ci ca wàllu ni mel euro 2024 ah, stade yéen kaay nañu nag tey ji groupe ba joowal dëgg la tey ji Romelu Lukaku donte nag ma ngay dugal boobu ba léegi nag dañu koy bañal ay biitam ndax position de hors-jeu ndax tey dana defaat lu ni mel te du hors bokk na ci laaj yéen kaay bi Samba Issa lii mooy lootu yëglikaay xeefu sal tey ji solo mbokk yi di leen ñaanal ngeen jàngat ko ci kaw jàmm ak salaam Grégoire ñu ngi lay jaajëfal. sant ak ngërëm ñaan la tamit. merci beaucoup maa ngi lay souhaiter nga passer une très très belle journée on se retrouve à demain incha allah. ngeen doog jàmm jërëjëf Grégoire Samba Ngom ñu jaajëfal ko bu baax a baax ci xibaar yi euh, rawatina nag lu ñeel ëttu yéenekaay yi mbokk yi des leen